di abonné ak aimer ak partager ak participer asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ali Imran TV seen jotaay mu tuddee hadisu bés bi dellu si na jëlal ko defal si hadisu bés bi ay hadis la yoo xam ne dañ ciy jàng ay mbir yoo xam ne hadis bi du gudd ndax cinq minutes la du ci jar saraaye yenn yi waaye daañ ko mën a takk daañ ko mën a jàng ci na <clears throat> mbokk yi nga xam ne yëg nañ ne saa bu ñu tàmbalee ñu jël ko enregistré ko dégluwaat ko ba man ko ñoom Fatima lay ca la ñu bokk hadiis bi ñu ko jëlee ci Nuaymu Nuaymu mu jële ci Abu Hurayrata Abu Hurayrata jële ci yonent bi alayhi salaam mu ne inna ummati yud'awna yawmal qiyaama qurran muhajjilin min aathaari al waaw fa man istataa minkum an yutilla xurrata fal yafal alayhi salaam nee na ci hadis boo xam ne bi Nuaym moo ko moom tam jële ko ci Abu Hurayrata mu ne yonent ba nee na xeetam bi maanaam jullit yi jullit yi bu ëllëgee yowmal xiyaam ñu ngi leen di xàmmee ci njàpp ndax dañuy nekk xurran muhajjilin xurr mooy dañu am weex-weex fii pell muhajjilin mooy dañu am jibb pell mooy weex-weex wi nekk ci fas ci jëbi jibb mooy weex-weex bi nekk ci tànk bi ñi daan jàpp bu yomal xiyaamee seen fii day weex seen cat fii njàppal daan yem day weex ci loxo ak ci tànk mu ne su mbir ma méttee ba malaaka yi dugg ci biir nit ña ci la ñuy xàmmee ña àndoon ak yonent ba alayhi salaatu wasalaam daan jàpp waaw daan jàpp kon képp koo xam ne yaa ngi jàpp yëgal ne njàpp li bisa ngi ñëw mu amal la njariñ nit ñépp daje noir yi daje te àdduna bëri na noir trop rawatina suñu côté afric bii waaw ko ci xam ne da ngaa bëgg yomal xiyaam ñu xàmmee la njàpp ngoog ndekete mu ni yomal xiyaam ci la malaaka yi baase ci la ñu sukkandiku ba mën a woo xeeta bi yëpp dajale leen ñu ànd ñoom ñëpp dugg ca tànt ba yawma laa zilla illa zilluhu lu leen koy may min athari wudo i ci jeexentalu njàpp ya mu ne nag kon nag ku ko mën ci yéen nay guddal njàppam lii loolu mooy booy jàpp raxas sa loxo bi lu mu gàtt-gàtt na agsi ci fi conc lu nekk booy raxas sa tànk lu mu gàtt-gàtt na àgg ci dojor bi lu lay wax ku ko ci mën na ko def lu tax mbokk yi ginnaaw day weex ginnaaw lépp day weex boo jàppee ba fii mooy gën nga bëgg ko yemale fii wala fii wala du àgg mu ne kon ku ko ci man na njàpp la jot waaw hadis bu am solo la mbokk mu ne xeetam yomal xiyaam ñu ngi leen di xàmmee ak dajale leen ci weexaay buy nekk seen xar kanam ak weexaay buy nekk seen tànk seen loxo lu ko leen may min atharil wudu jeexantalu njàpp moo leen ko may mu ne kon nag ku ko ci man na guddal njàpp la bu fekkee mën na ko na ko def na jàpp li kawe tànk itam na jàpp la xaw a kawe loolu la alayhi salaatu salaam sant xeer wi bëgg na ñëpp ñu ñu def ko noonu mu ko santaanee ndax bu ëllëgee njax jaxasoo baak yëpp malaaka yi daañ xamee xeetam kuñ seen rek ne kaay ci nga bokk kaay ci nga bokk jaajëfal nañ leen jaajëfal ñuy seetaan jaajëfal ñi abonné jaajëfal ñuy participer ndax am na solo lool ci liggéey bi tabaarakallaahu moo tax ñu koy wax ak di ko soññ ak di ko baamtu ndax bu ñu amee deux million abonnés deux millions abonnés di xëy di am dix huit mille quarante huit mille cinquante huit mille euh, ci ci wàllu partage ak aimé ñoom seen yooyu xam ngeen ne liggéey bi dana fi gën a dox incha allah yàlla na gën a dox mi ngi dox nag yàlla yàlla sàmm nu sàmm leen ar nu ar leen yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir te def ci suñuy poos dara salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. لله الذي أغناني وأعزني resto soo commencé dootoo ko bàyyi. alhamdulilah alladi agnaani wa a'azzani